jërë ngeen jëf yi dal nañu ci ku leen ëpp bopp ay da njongu topp na leen ba ci seen biir bi observateur assemblée générale ordinaire bi union des magistrats du Sénégal doon def ko ca saliga ca Mbour yéen bi nañu mbiri ay da njongu fa tooge woon donte ca moom i leen daje fal nañu fa kii di Maguette Diop mu doon léegi njiital union des magistrats du Sénégal terewul yéen bi ne nañu loolee du wax ji wax ji moo ne woon dàggasanteeg ak procureur de la république yéenekaay bi dañu coow laa nga dooree ca ba kii di El Hadji Amadou Diouf bi jëlee kaddu gi di ñaawlu li nga xam ne def nañu ko ne bu ñu fàttali mooy ki fi libéré woon Aïda Ndiongo ba ñu ko libéré parquet bi da caate génne ab communiqué di ca ñaawlu anam ya ñu ko libéré yéenekaay bi dañu dañoo bàyyi ba toog ca ndajam siis bi wax ko Serigne Bassirou Gueye ne loolee metti na ko ba fa kanamu yàlla yéenekaay bi dañu procureur moom kii di premier substitut moo ko ko yëgal Abdoul Aziz dugg moom it ci coow li magistrat yi nekk ca ndaje ma di dàggasante ci seen biir Marie-Louise Ndiaye bu l'Observateur nañu ay doyen yu ci mel ne siis Demba Kandji ñoo ca wax ba ak dal am ci seen biir laas nañu tàngoon na jër ci diggante procureur de la république di Serigne Bassirou Gueye ak siis bi di El Amadou Diouf ki nga xam ne moo libéré Aïda Ndiongo enquête nañu waalo waalo bi Aïda Ndiongo gayndeg waalo gi yëngal na magistrat yi réew mi turbale ne seen bopp ay bi di Amadou Diouf li mu guuxaloon Serigne Bassirou Gueye mooy lu waral mu àtte Aïda Ndiongue ba bàyyi ko parquet bi nekk ci ginnaaw di ca wax ak di dab dabal enquête nañu daje boobee magistrat yi réew doon def ca Saly dogal ñu fa jël bokk na ci Maguette Diop mi ñu fal mu doon léegi njiital Union des magistrats du Sénégal UMS loolee UMS la Sénat toj na commission électorale nationale autonome ndekki ñoo gën illégal ñëpp njiit la Doudou Ndir ak ñeenti membre yu nekk ca Sénat yéenekaay bi nee nañu waratu ñoo toog fukki nit a fan la ñu a àppal Malick Gakou borom grand parti laaj baa ngi ci xët mu njëkku la témoigne fan la Gakou jëm noonu la ko journal bi laajee ndax booy banlieue di Malick Gakou mi ngi waabale militant yi ne woon ci AFP di dugal ci biir grand parti yéen a bi nañu Matassi Diallo moo ci mujj Matassi Diallo ma woon ca Ndoukoumane tekki fa lu bëri ci biir AFP Matasi Diallo moomee fekki na Malick Gakou direct info nañu tremblement de terre ca Ndoukoumane Matasi Diallo suub na alliance des forces de progrès ci biir grand parti Le Quotidien nañu grand parti gën naa grand Matasi Diallo nee na jalañ ak i bagaasam kër Gakou Sud Quotidien nañu Gakou ko pis enquête nañu Matasi Diallo fekki na Malick Gakou ci biir grand parti rey AFP ca Ndoukoumane teg ci jekkali yoon yu boole na ñaari mbër yi li des rek moo di promoteur ñëw tëgg combat bi observateur nañu daleen caa tegal sax moom yu sundur ne leen bu ngeen tëggul combat bi man danaa ko tëgg ne ci kanamam lëkkii di Eumeu Sène borom tay shi nga dëkkee bombardier le roi des arènes ci yu sundur ne gars tëgg leen ko lu ko may man danaa ko tëgg askan wi tay la tëggati seen gémmiñ kaawtéef ca Thiès populaire nañu ca daara Serigne Bassirou Kane ga ca Thiès la benn waay nañu musiba ca Thiès benn taalibe bu ñu fa rendi ak ñaar yu ñu fa buddi